asalaamaaleykum ami chers fidèles internautes maa ngi leen di nuyu di leen ziar di am mbégte janoog yéen ci seen chaîne leader bile di Equivox TV la chaîne leader mais aussi c'est la chaîne qui informe juste en temps réel tey boo leen naa leen boo leen ko déggee moom mooy dëkku Siteu Siteu nag moom moo am combat ak ki nga xamante ni rek moom mooy Lac de Guiers numéro 2 dimanche tey nag ñu am mbégte ñëw fi nga xam ne moom mooy jàmm gën nee naa leen fii mooy sama fief fi laa juddoo fii laa yaroo ñëw nag euh, koo xam ne kenn dootu ko présenté euh, Sénégal muy Djily Seck Djily Seck nag ñu gën koo xam euh, ci le batteur de Siteu moom mooy tëggal Siteu nee naa leen Siteu bu feccee mu neex moom moo ko tëgg bu ambiancé mu neex moom la te nag dañoo fa yéene waxtaan ak moom ci naka la waajee li nga xamante ni rek moom mooy combat bi dañ koy daal di nuyu ziar ko bàyyi ko mu nuyoog ñu ñuy seetaan Djily maa ngi lay nuyu di la ziar. waaw mais soxna Bintu maa ngi lay ziar yow di la fay di la jox sa wàccuwaay bu baax. di nuyu waa yëpp ak xam nga ñi koy seetaan ak ñëpp kontaan seen teewaay baax. mbaxane yi lan la. mbaxane yi nii da laaj wala bëgg a xam. mbaxana yi mooy sita sita yi mbaxane yi mooy sita sita tuddatul kaboy quoi sita sita la tudd parce que sama taalibe Bamba moom lépp lu mu laal macha allah yàlla da ciy def xéewal quoi ah, fi mu ne nii moom mbaxane yi wa fi ne. laay walaay bu la jàppul sax da nga koy forcer par force. ah, ah loolu war naa mën ne de yow doom jaama gën nga yow bëggal rek. Mhm. tey euh, maanaam si sax jili tey ñu ñëw fi nga xamante ni moom mooy jàmm gën fekk leen fii si seen euh, euh, fief ñu war a waxtaanee ak yéen nga xamante ni moom mooy làmb ji dox diggante Siteu ak ki nga xamante ni moom mooy Lac de Guiers mu nekk combat boo xam ne combat bu am solo la ci carrière Siteu waaye nag am na ay polémique yoo xamante ni rek ñàkkul dégg ngeen ko ay nit di wax naan combat bi risque la ci ki nga xamante ni moom mooy sita naka ngeen di dundee pression boobu ak naka ngeen di waajalee seen bopp. non mais Bintu ñun dépassé nañ sax loolu di ñu def pression parce que lamb moom yaakaar naa wax la baaxoo lamb avant wax la après wax la kon ñun ay wax du ñu si déstabiliser quoi ñun ñoo ngi si lu ñu war a nekk di pare yaakaar naa lu nit waaj waaj waaj ay weeri weer bañ ne la ginnaaw suba la loolu wax amatu fa li am solo rek te duñ si taay te dañ koy wax fu ne mooy la de moom li mu wax na ko daf rek si kattanu yàlla. lan la wax. maanaam li nga xamante ni moom maanaam Siteu nekkul adversaire en fait lamb moo leen boole rek mais du adversaire du am ça veut dire comme ban côté. moom rawee na Siteu lu bari ci lamb. waaw <laughs> Lac wara Guiers war a sant Siteu Lac de Guiers bu ko Siteu jëluloon du bëreeti day sibile moom dafa war a sax sant Siteu Lac de Guiers beneen bi mooy na xam sport moom day jaawale sport ak biir kër gi ak mbedd mi moom daf koy jaawale voilà mooy tey bu mënee lekk avance su Siteu toog ba heure bi di xalaat respect bi ñu doon dund ñoom ñaar nga xam ne dañuy rombante grand mu ne ko rax moom bu mënee jàpp ne loolooy am ba léegi mooy xamul sport moo ngi jaawale biir kër geeg mbedd mi. lii sport la dafa nekk loo xam ne benn laps de temps la incha allahu rabi dimanche 22h coow lëpp day jeex yàlla may ñu ndam ñu ñibbisi si boobaa dañuy eggaat si grand frère ak rax mais instant bi làmb la mais la dëgër mënul may Siteu sens kooku Siteu ko may mais xamal tax ma wax loolu ñu nag la de ñan ñoo gën a nekk produit bu baax bi ñan ñoo gën a jar yow bu doon jaani bon ngay jënd non loolu kay dem maa la ko laaj man voilà loolu ñuy gars yi ñooy siise gars yi ñoo ñuy siise kooku bu ñu tegoon si marché bi <laughs> yàlla baax na yàlla nañu yàlla lafal cat ba dimanche incha allah. combat bi. dayo combat bi est ce que natt ngeen ko tey Siteu bu daanee la da guerre fi ko mën a yóbbu waaye na bu daanoo tam am na foo xamante ni dina ko fa wàccee tey dayo bi. yow posé question daan rek yow fi mu ne nii boo demee si la da nga expliqué ko mais fii yow dee fi wax daan rek ok loolu ma xool loolu ndam la parce que li tax mu nekk ndam mooy nga dugg si benn affaire boo xam ne ñëpp dañ ne mënoo si dara comprendre nga loolu doo ko waxee jàmbaar da koy cuuj te Siteu jàmbaar la la da guerre ñaata at a ngi mu nekk si làmb Eumeu Sène daan na ko mais gars yi nee nañ daan bi ñu soxla ngalañ mosu ko def bii danaan ngalañ incha allahu rabbi si te toog si kawam. moom lañ bëgg wala da bëgg ñu ñu préparé dem di niil daan ko rek lañ bëgg moo tax ñu jël avance am yee tey nag amaana ñëpp yërëm nañ ñu da ngay gis sax koo xam ne si te lay faral mais danaan la mais fi ma limay may xalaat mooy fan la koy jaar mais mooy li may wax la dëgër du oto du camion du kër la dëgër de nit la rek mbër la champion la comme mbër yëpp fii mbër yëpp ay daanu. waaw mais daanu na rek yàlla baax na compter de si benn lay tàmbalee moom wàññi si benn lay tàmbalee de yàlla baax na nag non loolu moom du ma ko tontu wax boobu moom du ma ko si tontu yow ndagam fi nga dëkk yàlla baax na loolu loolu ma si tontu sax kooku loolu moom waxut kii la rek loolu waxut mooy loolu waxut jongama la rek yaa ma gën a xam garaawul. kan lañ tuddee jongama signature euh, seen face to face bi moom ak Siteu ñu dégg Siteu ne ko sa kanam bi mel ni kanamu jongam loolu métti. non waxu ko sa kanam gi mel ni kanamu jongam ne la dëgër moo fa nekk ay yow ñu fay la nga war a wax mais la dëgër ma ni ma jaaxal mooy interview yi ñu koy defal interview yi ñu koy defal ni mu fay waxee ak ni mu fay joxe ak bu ñu ko fekkee muy entraînement lan moo tax du joxe noonu. lambu amul ay kii du ma wax ak moom du sam fii ko nga ngemb kii ngemb ngeen war a dugg si géew foofu mag amatu fa xale amatu fa ko am da ngay yóbbu sa kër yaa ngi dégg xa waa xaara ku am da yóbbu sa kër maanaam moom bu mu jaxase yu bokkul fii ku am sa kër ngay yóbbu nga ne dégg nga mu naan. xam mu ne euh, Lac de daf koo daf ko xeeb. waaw da koo xeeb mais la de Guiers wallaahi la Azim xeebul Siteu la de Guiers bu tëddee ba cinq heures du matin nga yee ko laaj ko akulaayam ak taalaayam xam na ne am na làmb ju mag. moom xam na loolu loolu nag amaana nit ñi mën nañoo yërëm ñi xamul di wax. mais moom la dëgër moom du ma sa wax loolu si àddunaam billaahi wallaahi li dama la ko waatal. loo xamante ni dina taxaw jàkkaarloog euh, ki nga xam ni moom mooy la dëgër ñu dóorante. non loolu moom loolu du lu ma lay wax fii parce que mooy li ma la wax looy bañ mu ñëw bu ko jàppal bis incha allah dimanche yàggatul da nga bëgg am la leer rek teel a la ñëw nga seetaan ñun yàlla yàlla dafa am lu mu defal si te si làmb. Eh, du bëre ba kese mais cëfër cëfër ji ni muy mel si bis ni mu koy fonkee xam nga lim siy daj niñ koy indee na muy bëree isilam làmb du dugg si géew rek di léewtoo pourtant Siteu am na defet Siteu ak Lac de Guiers kan moo jiitu si làmb Lac moo ko jiitu si làmb moo si def sax loo xam ne amaana dafa guñ ko si ndax moo si jiitu mais ñun mën nañ di am ay combat di am ay combat Lac de Guiers toog di ñu xaar parce que làmb ñun la gën a soxla lu waral loolu. kon ok lamb nekkul ay daanuwuma rek non non daanul mais xam lan la yow li lamb laaj dee ko def ni ñi dañuy bëgg si yow promoteur yi dañ lay tëggal ni day daanu sax ñëw gën a seer mais nekkul ay ñàkk daanu moo tax sa kase di dem de wala kii loolu amoon na bu njëkk mais léegi loolu amatul léegi da ngay am supporter mais supporter du ñëw rek di ñëw nii supporter bëre kese daan wala bëre match nii loolu indiwul supporter supporter da ngay am caay-caayu mbër am feelingu mbër di def li lamb laaj waaw mais xorom nag du lu nit di dem di jënd di ko sangoo wala dara xorom loolu suñ borom moo koy def si doomu aadama yee nag ku nekk téeli nga am rek yàlla baax na. gis ci li nga xamante ni moom mooy euh, open presse bu Siteu bi mbooloo bi gën a yokk mu mel ni Siteu doye gi mu amoon te la ko gën a am. waaw mooy li ma la wax parce que li nit ñi bëgg da koy def day dem si signature bu ko neexee mu noppi gaan wax dafa métti de bintu soxna si mais day dem joxe waxa waxa waxa ba am na ñoo xam ne sax. duñ comprendre dañuy gis ne leneen la imaginer si te ñëw si jàkkaarloo yi daf ni la dëgër daf ñëw toog ne nii ak a neex su looloo gën a neex foofu di wax mais est bu boobaa xaalis bi ñu ko fay dina ko méritoo est ce que nit ñi bu dinañ coow ci làmb yi tey saa buñ jàkkaarloo ba suba si boo xëyee TikTok bi foo tourné loolu ngay gis site xam nga site internet yi foo tourné loolu ngay dégg set yi maanaam application yi fi nekk yëpp site nga fay gis parce que mooy day joxe mais toog fee nee ne nee nee di aju doo wax dara bu nit ñi ñibbee ba seet fekk la fa ngay tëkkonte di mbëkkante naan nii loolu amul de affaire yi signature la ak diggi géew ba mënoo fexe ba ngeen bëre feneen. non non ñun suñu yoon nekkul si la dëgër tontu de ñun xam nga lu am solo mooy ñun liñ war a def ak li ñu war a wax si wax jotee dañ koy wax dañu war a def bu def jotee dañ koy def moom xaaruñu ko si dara ñun dañoo signé promoteur bi. Siteu contrat am lay matale noonu bu fa fekkul Lac de Guiers sax li mu war a def daf koy def mais ndokk bañ ko fay fekk mais moom première signature bi Siteu ñëwul pourtant dafa jël temps lu ne mu wax ko fa ñàkk tooy xepp mais Lac de Guiers yeneen signature yëpp day mel ni ku sangoo glace waa mais loolu lépp nag yàlla baax na dimance lay leer ñun daal dañuy ñaan yàlla may ñu dam mais moom ñoo ngi koy ñaan tamit li mu wax ngir yàlla na ko def. Lac de Guiers baatu bi ne far rek. nee na day toog si tànk yi moom champion bu toll ni moom li mu war a bëre moom ay bataille psychologique est-ce que tey du Siteu war a xale boo xam ne ñëpp nee nañ dafa sob fi mu dugg waru fa dugg mënu si dara kii muy dajal tamit daane dinaa woon ne du ma moroomam fu mu nekk dinaa ko fa fekk léegi yow looy dafati donte li mu wax yow la dëgg yow loolu yaa ngi koy dégg baat boobu kii fu taxaw dinaa ko fekk yaa ngi koy dégg si la dëgër loolu bi la dëgër dalee bëre ba léegi yaa ngi koy dégg mais bii moom xam naa day ñëw parce que bii yabul nit ñi sax bay taxaw bii day ñëw moom champion la bii dina ñëw yàlla na ñëw. Mhm. Euh, euh, touche bu bees bu sita mu mel ni chaque euh, combat Siteu rek jëli da ngay innover bi yoon ñu gis sa bari bari macha allah touche bi jéggi dayoo lan la. waaw mais mooy li ma la wax rek sànq loolu mooy waral lu at di dem ngay gën a jar parce que yow xaalis bi ñu lay fay pour nga am combat yamale woo ko si entraînement kese kese mais yaa ngi koy focus si leneen ak leneen. mooy fexe ji li ñëw ak doole xam nga maanaam loolu tim la ñun ñi toog fii nii nii ñëpp amul koo xam ne démb la fi ñëw wala bërki démb ñun ñi ñëpp ñoo nekk ndoon xale ba mag après ay xol mooy def luñ def day neex parce que xol yu ànd la bu làmb amut bu dara amul ñooy nekk bu làmbu amee ñooy nekk kon ñoo ñun répété sax duñ ko def ñi toog nii billaahi wallaahi taalaay répété wuñ xanaa man maay nekk ak Siteu nii sax di ko jàppal gaam sama gémmiñ nii su ma ñëwee jox booy te teewul bu ñëwee day neex loolu yàlla la. boo xoolee tamit Siteu lépp lu mu fecc ci làmb loolu moo fi nekkaat moo fiy nekkaat moo fiy nekkaat ba Siteu war a bërewaat ñëw innové defaat leneen ñu toppaat si loolu loolu yàlla la Siteu gi bi mu ñëwee ràngoot yooyu noonu mbëri ku dugg ràngoo loolu suñu borom moo koy def si nit voilà déggoon naan la suñu xorom si ñu yàlla jox ñu ànd ak moom sóor kom waaye yow bañ neex mbay si njaay di géwél looloo ko war mbay si fu mu nekk lu dul làmb sax bu fa nekkee day neex kooku suñu kilifa la de kooku suñu mag la kooku man aw maag moom benn problème te duñ ko mës a am si àdduna man wallaahi la azim aw maag benn tëggkat problème man xam kan laa amal problème Siteu sama problème mooy ma ñëw indil ko lu neex loo xam ne àdduna dañ koy waxtaane après nag lu keneen def loolu la mais man moom wax fa dëgg yàlla am billaahi wallaahi yoruma sax esprit boobu man ma guerre ak tëggkat non non que ñun xam lan mooy suñu guerre ñu ñëw indi suñuy sabar foor ko ba mu neex tëgg lu neex suñu xabtal suñu mbër mu dugg si géew bi du ma daan loolu mooy jeexal làmb te amul leneen loo fa def da ngay ñaax fayre te loolu ñun bay si dunduñu sax loolu te billaahi wallaahi man nit bu ma xam ne bëggoo ma sax buñ tasee ma ak yow esaat bu mu la dund loolu xalaatuma ko mais teewul nag suñu làmb moom lu ñuy ndaw ndaw suñu baxan lañ koy teg lépp lu ñu war dañ koy def mais duñu tooñ duñu dépassé mais nit duñu tooñ tamit waaw ah, voilà yéen ngi sóor tam li nga xamante ni moom mooy euh, euh, maanaam xeex violence ci làmb ji yéen a ngi sóor lool ba tax euh, maanaam violence ba ñu am ci làmb ji ndax la guerre boo ko déggee ci bi ay waxam yépp mu ngi naan du Siteu mais maanaam ñi ànd ak Siteu moom ñooñu lay waxal. mais ñi ànd ak Siteu ñan yow kaw turbine kaw turbine ñu waxtaan rek mbër yàgg na romb loolu bi làmb soso ba léegi kaw turbine ni ñu yor ay glace wala mbuusu ndox wala kareem ak yooyu sànni la ko. am na fi mbër yoo xam ne sax fi dañ leen ko sànni ñu jël wala ñu sànni banaana nga jël lekk tribune bi ñooñu kenn mënu leen téye ñooñu Siteu mënul xam ñëpp li am solo mooy ñun ñu ñuy àndal dégg nga open press bi li la Siteu wax defaraat leen seen toogaay samay or ak samay jamaa daane man leen rek moo ma mën a yàqal mooy ñuy toroxal sama nit te loolu lu si moom. kon ñun moom xeexloowul kenn xuloowul kenn moom dina xeex dina def li si war lépp si kàttanu yàlla gaa yi nañ teel a ñëw rek daf comme niñ ko daan defee ñun loolu lañ ñu xamee. ñëw teel a tëj stade bi mu fees dell amul toog benn côté ñu naan la fii côté Cité la moom da koy wërale xamul lan la sax loolu yàlla la mais wallaahi mosuñu ñëw si làmb ñëw intention violence mais mbooloo fépp fu mu nekk dina am ñu mel nii am ñu mel nii am ñu mel nii a ngay ñu ne la mbëri na ñuy waxtaan ak seen i supporters mais Siteu fépp fu mu waxee day jàllale message boobu Siteu ku ne xam ne ne sensibiliser moo si mën mais jouru làmb ñi lay ñëwal ñëpp xamoo leen am na ñoom dañuy jóge fu ne ñëw sol seen tiset ñëw mais est ce que ñëpp mbër xaritu mbër bi lañ ok mais yal na yàlla def jàmm làmb ji am si jàmm jeex si jàmm kenn bañ see gaañu kenn bañ see leen lenn Siteu daan la daggéer jël bu rëy toog si kawam xaar photo maa wax ak yow de. ñu ngi xaar Siteu indi ñu roi des arènes. incha allah képp borom bitigu mbagg boo gis magasin moo nekk si xolam te Siteu macha allah depp moom mi ngi si biir magasin yi a ah, xëy na magasin yi ñooy ëppante rek di des mais moom magasin la yor lii buñ si jógee lu ne mën na ñëw yàlla na ko yàlla suturaal sac bi nekk si daan la de guerre yàlla bu mu ñu ump yàlla na ko ko yàlla dafal cat bañ ko jàpp yàlla may ko wér ba dimaas gaan jàmbaar rek moo neex a àndal si te góor la de billaay wallaay si te jàmbaar la trop non ñun ambiance moom bu doon mooy maye ndam fii laay toog ne la damay feetu bu doon pour neexal stade bi rek ndam li ñëw kon fii nee naa ndam li ñëw na mais dafa des leneen ak leneen maanaam pour wane la côté boobu ñun xalaatuñ fa sax ñun côté boobu si pare yee eh, jàmm gën yaa tuuti côté boobu pare nañ si bu yàgg ñun moom esar képp fu ñu fa dajal waajal suñu xuloo ak yow si sabar yi la suñu xeex ak yow si sabar la incha allahu rabbi. amoon message booy lancé waa Guédiawaye ak Lac de lan lay doon mu tàggatoo. waa Guédiawaye ak Lac de wax fa dëgg yàlla moom. du ma ne géej waaw man géej waaw ñëpp jàpp nañ ni bu jàppee si te du doy tey boo amoon loo koy wax nii mu jàkkaarloo yow lan nga koy wax. la dëgër non yàlla defal ko jàmm rek ba dimanche mu ñëw moom champion la jàmbaar la li mu wax li mu wax comme nan moom si moom laa koy wax nii de yàlla na ko yàlla defal jàmm ba dimanche mu ñëw ndànk stade bu arbitre bi ne far mu xam ne gor sa wax ja mu dox ndànk ut si Siteu yalmin bi yaa ngi koy gis nii gersun gersu waa dal xool ko <laughs> kii na la dageer dagg jéngi yi rek ñëw fekk si ko incha allah moom nee na bu at bi ne far bu ma amee moom loo xam ne dama koy yóbbante lool la champion la jàmbaar la te nee na fu si ta nekk dina ko fa fekk na ñëw waxuñ nag ñëw yooyu de di ñëw naan nii di ñëw naan nii di ñëw naan nii bu nit ñi paree nga ne ñëw naa waxuñ ñëw yooyu de ñëw dawuñu de mais na ñëw luñ daw centimètre dinañ tase ak moom si kàttanu yàlla pël na ñëw. nga tàggatoo. waa di santaat yàlla rek di kontaanaat si jàmm gën bëggee suñuy xarit kulim juum darki ndaa yëpp a ngi nii fóoree xam nga bara gay kulim juum quoi gaa yëpp a ngi nii ñoom Laurent Dernoville xam nga ba borom Seras kii xar mu xar bu duuf Seras bu ne moo ko moo ko joxe barke Serigne Bamba ak gaa yëpp Modou Lamine Baara sama raq maa ngi bëggee ñëpp di kontaanaat si waa jàmm di wax ñun nañ ñu xame nit ñu xamee nañ ko def nañ teel a tëj stade bi sol rafet toog Siteu dina gérer li si des lépp incha allahu rabbi di nuyu tey suma xarit ku mel ni Karim jaaxal boutique borom Sandaga xam nga ah di ko bëggee bu baax a baax di wax waa jaaxal yëpp barke sëñ Bamba ñoo ngi tàllal suñu loxo di leen sàqu ñaan nañ ñu dafal ñaan ci barkit borom jaaxal barki Serigne Touba waaw di ko jaaral nag si suñu xarim Karim jaaxal borom jaaxal boutique accessoire yu baax yi xam nga di nuyu Ousseynou Ka Bàcc Diop Kulim Dioum Cheikh Sarr. daam Cheikh Sarr sama nijaay Balla Seck Italie maa ngi bëggee ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp maam Roxoye du ma la bàyyi ginnaaw yow xam nga ne yow mënu ma la fàtte benn yoon di la bëggee yow it xam nga ak waa Equivox bi yëpp yëpp yëpp yàlla na seen jaamu yàgg acca noo ko gisandoo tey nag ñu ngi woon fi nga xamante ni rek moom mooy jàmm gën seet si Djily euh, Djily kenn doot ko présenté moom mooy tëggal ki nga xamante ni moom mooy Siteu dégg ngeen kàddu yi nga xamante ni yëkkati na ko am nañ gëm-gëm ni Siteu bu jàppee Lac de da koy daan jël bu amul benn werante seen gëm-gëm la di leen jox rek dig daje incha allah rabbi très bientôt ak feneen jaajaf merci beaucoup